Aline Soumaré ñu ngi leen nuyu di la dalal si réew mi. waaw euh, Elisabeth maa ngi leen fay di nuyu suñu auditeurs yu euh, donc ñuy waxtaan ak ki nga xam ne ci kër gi la bokk ngay technicien di également consultant Rewmi FM tey ñu wax ci match de foot yi euh, premier tour bi daanaka jeex na ci mercredi bi nan nga jàngatee li ñu gis bu njëkk nu mu mel. waa li ñu gis euh, bu njëkk si si si si door ndorteelu kan bi mhm. mooy mooy ay jafe-jafe lu ñu gis ci équipe yu mag yëpp ñu jànkoonte ay jafe-jafe yu méttee métti métti métti mhm. donc euh, ñu gis aussi am na équipe yoo xam ne den ci gëjoon lool ku mel ni Sierra Leone nga xam ne toog na ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne participé wul si mu del ah, waaw waaw mu dellu si ñëw xaw a xaw a xaw a xaw a xaw a gagné bi nga xam ne mooy mooy raaya bi muy muy Algérie ñu gis aussi Cameroun bi muy muy udd muy def ouverture bi mu am jafe-jafe bu metti euh, wax waa Burkina Faso yi ñu gis tamit Sénégal bi nga xam ne mooy bi champion d'Afrique mm. xawoon am ay jafe-jafe tamit yu tar moox Zimbabwe Mm-hmm. heureusement ñu am penalty ci ci ci ci njeexalteel bi Sadio Mané dugal ko. Mm-hmm. donc ñu jàpp ne actuellement football africain bi doole yi dañu xaw a yem. Mm-hmm. parce que ñi nga xam ne ñoom lañu yaakaaroon ñoo ñoo ëpp léegi dafa mel ni ñeneen ñi dañ leen fekk ci si kaw. moo tax jongante bu ñu am rek day métti. ba pare ñu boole ko euh, jafe-jafe euh, naaj bu tàng bi. Hmm? ko beneen jafe boo xam ne mooy jafe bi nga mooy mooy mooy fëgg buntu sélection yëpp muy Covid. mooy coronavirus bi mhm. nga xam ne moo lëmbee réew mi àdduna bi yëpp ba nga xam ne équipe bu nekk balaa ngay joué sa doo bu doo mun am certitude que ne sa équipe bi nga soxla di ko am ndax feebar ba nga leen di ma moo ngi leen moo ngi leen di ñoom donc loolu mooy li ñu mën a jàngat ci première tour bi jafe-jafe yu metti yooyu euh, ak euh, quelques surprises comme ay Mali yoo xam ne ñoom yaakaaroon nañ di leen def ay prestations ndax ñu wane tey seen taxawaay tam d'accord ndax li ñu gis euh, premier tour bi euh, mën nañ ci euh, def benn jàngat xam ñan ñooy outsider yi ak it équipe yi nga xam ne boo moytul mën nañu dem ba huitième de finale. waaw ñi nga xam ne yaakaar nañ ñu dem huitième finale mooy ñi nga xam ne ñoo yore raaye muy Algérie. Mhm. vice champion bi nga xam ne démb wane na taxawaay bu rafet. Mhm. gis Mali li mu wane. di xaar nag ak ak Tunisie même bi ko Mali gagné tey sax ñu am nañ yaakaar ne mun na dem huitième de finale ak Côte d'Ivoire bi nga xam ñu ngi koy xaar si ba ci kanam donc ñooñu ak équipe yooyu daal yaakaar nañ ni daal euh, dinañ ñam huitième de finale bi mais surprise yi nga xam ne war nañ ko mën a am ci deuxième tour euh, tour bi. Mm-hmm. mooy ay équipe yu mel ne ay Sierra yi nga xam ne vraiment match bi ñu def démb contre Algérie dina leen jox euh, xadar boo xam ne. mun nañ créer sur parce que xam nañ ne ci kan bi les trois meilleurs troisième yi dinañ leen repêché ku ñu dem euh, complété tableau huitième de finale. kon daal gis nga ne Sierra Leone moom moo créé ci premier tour euh, premier tour bi lii di surprise bi moom mooy. Euh, voilà mhm. waaw waaw waaw. d'accord premier tour bi surprise bi ñu am mooy Sierra Leone li mu ñu indi. nga wax fi lu am solo lool muy yi nga xam ne depuis boobu ba tey ay techniciens ñu ngi koy soulever muy temps bi. ak it qualité euh, pelouse yi ñuy euh, jouer ci ñuy jouer ndax li ni mel euh, war na mën a doon excuse pour joueur yi nga xam ne yàgg nañu mën naa ko waxee noonu jouer ci ay terrain yi ni mel waaw loolu mën na nekk jafe-jafe parce que comme ni nga xamee sélection yëpp daanaka boog leen jëlee li ci ëpp ñoom ñëpp seen joueur ñu ngay jouer Europe te Europe ñëpp xam na ne seen terrain yi moom vraiment comme comme tapis la moom dangay mën nga fa sax tëdd nelaw hmm. ndax euh, euh, bal bi day daw bu baax di glisser bu baax joueur yi nekk à xam nañ ne footballeur moom su terrain bi neexee rek dafay gën a yokk euh, pas-pasam hmm. muy benn ñaareel bi muy climat bi température bi ñuy joué hmm. naaj bu tàng bi dafay métti si ñoom parce que ñoom ñëpp fi ñu jógee Europe actuellement c'est ngi si hiver neige baa nga fa lépp nga fa ñu bàyyi fa loolu ñëw donc fekk fi tàngoor tàngoor boo xam ne dafay jéggi dayoo pour football. Mhm. donc ñooñu tam mu nekk jafe-jafe waaye nag sélection yi fa nekk yëpp ñoo yem atte ndax ñoom ñëpp loolu leen fay fekk. Mhm. donc équipe sélection bu fa pas-pas rek ak joueurs yi gën a am détermination ñoo ciy génn parce que Coupe d'Afrique des Nations encore une fois mun nañ jàppale si compétition yi gën a metti ci monde bi la bokk. Mhm. coupe du monde sax léeg-léeg nga dajal équipe ñu xaw a ah, parce que ñoom ñëpp africains yi. yàlla moo leen bindee ñoom ñëpp ñoo bokk ñoo neuromorphologie mhm. mun a daw mhm. mun a tëb mun a kii xam nga bu ñu daj boo ñu mel noonu bu ñu dajee yëpp day métti day waaw donc loolu jàngat la boo xam ne ñi dañ koy toujours ñoom bu ñu jógee Europe ñun fay dajal ñoo leen ëpp ay qualité physique mais bu ñu ñëwee fii ñoom a seen at moroom yi ñooy bokk daal menn benn at day métti si ñoom mbas mi mel ni tamit ku leen topp euh, sànq yaa ngi koy wax adversaire la euh, tey ndax mën na soppi euh, xaru kanam kaan bi. waaw kan xam nga sànq comme ni nga ko waxee dina salaat nee nañ ne pour man adversaire bi gën a redoutable ci kan bi mooy Covid bi. Mhm. du adversaire sànq équipe ak équipe dëkk ak dëkk. Mhm. Covid bi la Covid bi nga xam ne moo lëmbee adduna bi yëpp yëpp yëpp mhm. kenn am mucc si. donc kan boobu parce que sélectionneur bu nekk boo tëddee da ngay xalaat ndax su ma xëyee ba sama joueur bi du Covid baa kële du Covid joueur bi si boppam bu tëddee mi ngi xalaat naan ba dinaa mën a jouer ba dara du ma dal xam yooyu yëpp dafay day yokk pression day yokk si si si joueur yi donc Covid bi moom tam lu lu facteur bu doy waar la ci biir kan bi mm-hmm. boole tax jafe-jafe terrain boole tax jafe-jafe euh, climat donc Coupe d'Afrique bi si Coupe d'Afrique gën a metti la la si yi ñu musal xam yëpp lay bokk. Mhm. ndax li ni mel joxul dëgg ñii ca ndorteel ba doon wax ne euh, kaan bi dañ ko war dàq. waaw mun man duma nangu ñu jox leen dëgg. xam nga tax. Mhm. Mhm. parce que boo ko seetloo euh, Europe boobu ñu jógee ñoom fa la Covid bi ëppee. damay jël benn exemple rek Angleterre ci boxing day bi ñu jógee nii. équipe yu bëri bind nañu fédération anglaise ne leen dañu bëgg ñu reporté parce que seen moitié équipe ba yëpp dañoo covid mais ñoom ñu ne moo bañ dañ koy joué donc ñoom buñ ko nangoo seen dëkk war nañ ñu ko mën a nangoo ñun itam suñu suñu dëkk bu ñu ndax covid bi ñoom la gën a sonal ko Afrique buñ bëggee waxante dëgg benn mhm. ensuite test yaa ngi ñu koy def di protéger joué donc du ñàkk nag benn ñaar ñett wala yoo xam ne dina leen dal parce que moom noonu la la feebar bi tëddee mhm. waaye du tere war nañ mun jangoonte muy benn ñaareel bi moo aussi ñoom ñu nangu ne suñu compétition bi ci compétition yi gën a suuf ci àdduna la bokk parce que recruteur yëpp nga af ñëpp nga kabur yëpp mhm. télévision yëpp nga branché Cameroun moo lay wan ne ñun di ñu yore nii lu am solo la dañ ko fekk Mhm. Euh, dañuy faral euh, di wax ne nul ne indispensable waaye tey euh, dafa am ay cadres yi nga xam ne dañoo bokk ci équipe nationale bu Sénégal te mhm. jamono ji dañoo nekk ci ay gàllankoor ñenn ñi Covid la ñenn ñi gaañu moo leen tax moo leen tere football ndax li ni mel dafa feeñ ci seen prestation bu njëkk. waaw feeñ na nag feeñ na bu baax a baax a baax. Hmm. ndax boo amee cadre yoo xam ne ay quatre cinq wala six. yoo xam ne mooy génn ci onze xam nga day daal di metti mhm. te di nga dugal koo xam ne musul jouer coupe d'Afrique mhm. ndax Sénégal bi muy dem am na ci fukk ak juróom benn joueur yoo xam ne musuñoo jouer CAN demoon ñëw nañ bokk donc ñooñu boo tëbee rek dugal leen ci match boo xam ne xalaatuñ ko woon ndax Covid bi jàpp nañu leen ban dugal leen il faut mu am mu leen def tuuti au départ mhm. avant ñuy avant ñuy am taxawaay. Mhm. donc mais heureusement yàlla def ñu am si biir équipe bi cadre bi gën a réussir ñu cadre bi ñu Sadio Mané ñu laal bant moom dara jotu ko woon boo tax mu génn ñu si surtout mu méttee noonu. Mhm. waaye yaakaar nañ ni match yi di ñëw di leen di leen di leen dinañ leen récupérer benn par benn ba nga xam ne dinañ am taxawaay bu gën a baax bi ñu am parce que li ñu taxaw keroog moom xawoon na indi ay jiixi jaaxa ci xel bi. Mhm. ñoo ngi wax tamit waxi Ismaïla Sarr dana wala du dana wala du wax ci bëri lool ci mbir mi ndax yow am nga yaakaar en tant que technicien euh, ni moom mi deuxième partie bi di amaane na mu bokk ci euh, composition équipe bi. man de su ma doon sélectionneur bi ma ko boole si sama ren ji dama koy damay génn sama xel si moom. ndax doo ko ci sóoraale. du ma ko ci sóoraale parce que ku toog ñaari weer compétiruloo muy benn. Mhm. ñaareel ba. ñu naan ñu yóbbu Espagne muy defaat ay test sax yooyu kooku boo ko dugalee adversaire yëpp xam nañ ne ñu wérul bu baax. Mm-hmm. buñ ko dugalee dañ koy dañ koy éliminer rapidement daf leen koy jaral. Mm-hmm. daal di ko éliminer ba nga xam ne bés bu ñu jógee si kan bi am nañ fi yeneen jongante yu ñuy xaar muy muy barrage coupe du monde. Mm-hmm. te bu boobaa da nga koy ñàkk foofu ñàkk te foofu lay gën a métti ndax barrage yooyu mooy gën a métti sa kan bi parce que barrage boobu moom le meilleures équipes africaines ñoo fay daj. donc doo fa dajax benn como. donc man suma ma doon sélectionneur bi dama koy bàyyi mu ne ko xam nañu joueurs ko mën a wuutu si biir si sélection bi pour jël mhm. Coupe d'Afrique bi dañoo gis ne engouement bi dafa des maanaam xumbute gi ñu daan nemmeeku ci suñu réew euh, bu suñuy Lion demee jongante ji dafa des euh, gis nañu tamit ne reportage yi ñu doon nemmeeku. te mu mhm. diversifié euh, ci antenne yi ku ci nekk tànn ci bu la atum ren mhm. dafa mel ni dañ ko centraliser yóbbu ko ci benn benn direction yow ngay consultant yàgg def ay reportage tamit bu. événement yi ni mel amee tey sa impression ci mbir moom nga xam ne soppi nañ ko euh, ci doxin. waaw man euh, so euh, li ma ciy nekk mooy déception la ci am rek. Mhm. déception parce que ñu dañ ko préparé woon baax a baax baax a baax. Mhm. ci def ay reportage ay commentaire ay analyse yu muc ay comme ni ñu ko daan defee. Mhm. ba nga tax ba nga xam ne auditeurs yu bari réew mi FM ñu daan jàpp. di bu ñuy seetaan télé dañuy fay seen son télé di déglu suñu rajo bi. ñu baree ngi woote di ñaxtu di jàmbat naan lu xew donc metti na boobu méttiwaay parce que ni ñu ko préparé wu ndax liñ ci naroon def yëpp innovation yu bari ñu ñu ñu gàllankoor. Mhm. beneen bi mooy comme ni nga ko waxee ñoom tam dañu xam ne aussi euh, consultant yi nekk réew mi faax qualité bi ñu leen jox tam waaye ñoom dañ ko soxla. Mhm. donc mu nekk loo xam ne metti na auditeurs yëpp metti na euh, yeneen yëpp parce que mhm. dafa am problème. Mhm. beneen bi aussi li tax engouement boobu amul tam dañu tombé ci période boo xam ne dëkk bi metti na. Mhm. Covid baa ngi fi. Mhm. Euh, élection municipale yaa ngi fi. Euh, euh, Sénégal la dafa écarté la ñii ñi ngi jaar nii ñii jaar na li donc loolu moo indi lii yëpp ba nga xam ne. ñu ñi ñi dañuy fàttali sax Coupe d'Afrique am na xëy na nag bu ñu àggee second tour. nga xam ne foofu waaw nga xam ne match yi nga. xam ne ah, foofu day day day soppeeku waaw boobu beneen affaire lay doon boobu moom je pense que ñu leen gën concentré parce que xam nañ ne lu mu metti metti Sénégal dina jaar deuxième tour parce que ñu mu ñu mu ñu mu doole moo kii bi ferveur bi jógagul lool. d'accord euh, dinañu dellu siwaat fii ak waxtaan wi di la jox dig daja rek bu beneen tour jàllee euh, ñu daal di waat euh, analyser waat demin googu en attendant tamit ñu am yaakaar ne bi fileeg boobu xanaa nag autorité compétente yi dinañ soppi doxalin ci wàllum commentaire yeeg retransmission match yi. <laughs> jërëjëf jërëjëf Alioune Soumaré ngay consultant Rewmi FM ñu lay jaajëfal bu baax a baax. Allez, merci.